suñu Ahmed Tijani dafa wax coup d'état militaire lu mu doy coup d'état administratif moo gën garaaw te mesures rek di gaañ nit ñi te du wax di jël ay mesures rek di nit ñi rahmata mais yërëm nit ñi jot na ah. responsabilité ngi commencé ci étape bu gën kawe ne war mobiliser wu te conscience bi pour jëm ci étape parce que régime socialiste bu Sénégal échec nañ régime démocratique bu ñoom PDS ak seeni alliés yëpp échec nañ man maa leen ko wax léegi nag beneen état ba ngi ñëw état bu nga xam ne képp kuy bon volonté ci Sénégal boo bokkee ci diine boo bokkee ci politique boo bokkee ci culture boo bokkee ci sport lépp loo mën a bokkut bu sa xel rafetee te baadoo la woo Nous war pour cette fu au Sénégal Et il nous faut absolument parce que rien ne nous continent bi to xol la il faut que tout le monde muy journaliste tous les intellectuels français forum civil tout le monde que quand même pour coordonner pour benen niveau wa orbite Sénégal Moi, am lu représente